dafa yokk ñu ñëw ñu ñëw dindi ko jomaay ñëw dindi ko. ok Macky Sall bi muy dem ba dara desul lu dul dem. Mhm. am na benn bateau tanker pétrole bu nekkoon port dañ koo bañ a fay. xam nga pour lan la woon. Hmm. sabotage. sabotage bien vrai que sabotage la noo ko mën a tuddee. ok xaalis bi ñuy njëkk a jël bi dugg yu extérieur doo ko dugg ci Sénégal ci bateau boobu dañ ko cee fay ba pare jëndaat beneen pour rupture bañam amul bu ñu fi gisul une semaine yow yow jour bi nga xamante ni yow président Diomaye ma nga fële di prêter serment. Hmm. le même jour yow ou le vingt quatre heures avant la veille ngay signer ay contrat di jox ay nit ay contrat CDI. même am nga dégg ay sept cent personnes. Hmm. au port. yu yu yu ñu recruter ñu naan la quatre cent yi. ay emploi ndaayaan la non ndaayaan lañ leen di yóbbu. ci port bu pareegul. xoolal li ay xoolal li xew poste. xoolal li xew RTS fu nekk nga saboté teg say pion tey ji ñooñu ñooy taxaw tey naan xool li am Laurence. Mm-hmm. ak feneen ak feneen foo laal la. scandale yi bëri nañ. mais am pagay scandale yi Ousmane Sonko sax président euh, premier ministre waxul lépp xaaral ba ministère yi génn. ba ku nekk di ano ano na dana waxaat. non bu ministère yi génnee ba nekk di wax say njombe yi nga xamante ni moom nga fa fekk. waaw loxo daj gémmiñ est que nga yaakaar ni loolu tax ñu ni la. Mhm. dëgg jarta sonn seen tuweer jarul buuxante fu waaye tollu seen ko lu ni fànn kenn du ko jeex. Macky Sall fi mu jëlee réew mi ak fi mu yóbbu réew mi ba bi muy dem. Mhm. Sénégal yëpp teg nañ ci seen bët. ba ñëw ci problème sécurité ak sûreté wu réew mi si vous ne faites pas attention d'autres gens vont vous rendre pour prendre le pays. moo ko waxoon de. foofu la ñu toll ñun. moo ko ah ah mais loolu gàcce la si on ne fait pas attention ñeneen dinañ ñëw jël suñu réew ñun. waaw ah, loolu la yi ñor bi ñu ñor. Mm-hmm. ils son pris leur courage à deux mains plus particulièrement la jeunesse de ce pays ñoom ñoo taxaw tey jii ñii nga xam ne dañ leen a fal du benn lobby bu leen fal. Macky Sall lobby croix la on les a élus. Mm-hmm. dignement seul le peuple est souverain moo tax ñun ñu gëm ni pour yóbbu Sénégal jëlee ko A yóbbu ko Z il faut ñu basé wu teg suñu bopp sur cette endogénéité gis na loolu may toujours ni endogène endogène endogène hmm. loolu mooy gëm sa bopp d'abord bala ngay basé wu ci keneen d'accord tey mënuñu toog ñu ni 66 pour cent des matières premières du monde proviennent de l'Afrique oui c'est la Sénégal cent quatre vingt seize sept cent vingt deux kilomètres carrés. Mm-hmm. yor trente cinq ressources naturelles dans ce petit pays. Elenkin ba Saint-Louis sept cent et quelques kilomètres de côte yow ngay jël Union européenne constituée de quinze pays. Mm-hmm. nga signé ak ñoom contrat pour cinq ans que milliards ni leen dem leen napp ci géej Sénégal. suñuy superficie toll ci deux cent et deux cent douze kilomètres carrés. Mm-hmm. su d' ailleurs suñuy superficie maritime moo ëpp suñuy superficie terrestre ni ñu yaatalee ci ay superficie géej noonu la Mauritanie toll. Mm-hmm. lan moo tax Mauritanie war a am jën ñun amuñu jën. loolu cela veut que ñun dañoo jaay suñu géej. mu sommes étrangers à nos propres ressources lii mooy dëgg. un secteur mérite privé boo xamante ni kañoowu leen doyloowu leen xoolu leen faalewu leen et on ne peut pas faire ce pays là. ñi nga xam ñooy porter tey économie Sénégal muy secteur bi nga xamante ni moom mooy l'informel et le secteur privé. ci ci mandat euh, Macky Sall bi gis nañ ci loo xamante ni c'est c'est c'est national c'est international c'est mondial mooy euh, Covid 19 mais mu weesoo ñi euh, ngeen di jooyee réew mi nu mu amee jafe-jafe nii Macky Sall mosu ko jooyee noonu lan moo tax Macky xamle Sénégal bi muy bàyyi Sénégal Sénégal bu jeg la fi bàyyi woon bu jaar yoon bu dal. yéen ngeen am sept mois génn mbóot yu xamante ni euh, jaaxal na réew mi daal qu'est-ce qui se passe. tricher moo baaxul yàlla nañ ci yàlla musal. tricher. tricheurs yi yàlla nañ ci yàlla musal. gis nga suul bukki sulli bukki bukki bu mujj ba moo lay rey ñun nous avons pris notre courage à deux mains en disant à la population sénégalaise la vérité. la vérité et à l'opinion nationale et internationale. donc Macky dëgg dafa neex. avait menti le peuple les partenaires. dëgg moo neex parce que yàlla moo bëgg dëgg. man jomb naa taxaw fii di wax loo xam ne du dëgg rus naa ko nit da am looy rus am looy jomb am looy ragal hmm. ñett yi nag bu jógee ci nit dootoo nit moo tax ñuy jël seen courage à deux mains wax li am wax li am dina tax banque mondiale ak FMI mere la le Sénégal est un bon banque mondiale lan lañ banque hmm. banque bu nekk da ñaan yàlla am client ah mais na mu nekk muy client boo xam ne leer na ko client bu riche la le Sénégal est potentiellement riche Sénégal dugg na dans le cercle restreint des pays producteurs de gaz dugg na dans le cercle restreint des pays producteurs de pétrole. Mm. léegi first satellite ngay dégg first oil gaz gaz to power gaz to industry pays boobu ñuy wax cent soixante cent soixante douze euh, kilomètres carrés nga xamante ne tey c'est constitué de dix huit millions de sénégalais boo ci génnee sunu mbokk émigré yi nga xam ne bravo ñi nga xam ñu ngi dugal plus de mille cent milliards ci biir réew mi. gàcce a ñoom ñeneen ñi fi des Sénégal boobu warul pauvre ba sunuy doom di dugg ci géej gi di dee ji di jëm ci pays industrialisé yi. très bien pays yooyu ñu jëm xam nga fan seen matière première. fii ci Sénégal lañ koy jëlee. Macky moomu nekk tête de ci élection législative yi novembre 2024 jiite liste bu taxawalu Sénégal nga dëgg Fadilou Keita di cadre ci PASTEF ne Macky Sall doit être traduit devant la justice parce a que xamante ni mënoo ko bañ a tuddee lu dul conflit d'intérêt mënoo koo wax. lu dul topp leen ko ci loolu. pardon lu tax topp leen ko ci loolu. lu tax toppuñu ko ci sàcc bu dul raw jarte yàqi nelaw. Ah. bien sûr il y a des lois standards hein. dans le domaine pétrolier dans le domaine gazier sur beaucoup de choses il y a des lois standards. am na yoo xam ne mënoo lëcc c'est autre chose haute trahison. est-ce mën nga mën a nangul benn affaire. mooy lan. Interpol am na de. waaw Interpol lan police des polices yi nga xam ne diggante euh, continent continent. am na. loolu link la on est d'accord. waaw link la dafa am ñoo xam ne dañuy def ay njombe da ngay dégg dóor nañ ko mandat d'arrêt international da koy dégg waaw la déet. loolu am na. kon bu fekkee ni muy chef d'état woo bañ a nekk chef d'état am na loo xamante ni buñ la ci inculpé ñu jàpp ni lii haute trahison la mais dañ lay traduire mu jeex. d'accord lim fi def bu ne weng mu ngi fi yàggul ci ci ay dee ci ay disparition ak ci yu yu bari ay crime économique crime économique laa la crime ñoom bi ñuy defar OFNAC lan la ñu waxoon OFNAC pour ñun la. Hmm, ah ñoom ñoo ñoom ñoo ne pour ñun la. CREI yi pour ñoom la mais OFNAC pour ñun la. Hmm. waaw. alors ah, pôle judiciaire bi bi ñu koy tabaxal. waaw taxawal noonu est-ce que dama nama woon nañ fa 23 na namuñu woon kenn de kooku vide la woon. kooku vide waay. kay léegi nag. Hmm. seeni rapport ñoom. seen i gouvernement ñoom ak seen rapport ñoom hmm. la ñu jël yóbbul leen haute cour euh, ni ñu ko ni ñu ko ni ko yóbbul leen euh, euh, pôle judiciaire ba kay haute cour de justice na ñëwagul parce que moo tax fi ne nii ñuy daw asamaan ak suuf te loolu day amee parce que peuple bi souverain ba jox ñii majorité boobu même peuple boobu mooy joxaat ñii majorité ñu taxawal haute cour de justice yi képp ku fi luubal di ko fay ba dernier sentime amul sax négocier Ousmane ko wax na ko projet bi hmm. nekk ñu fi di layam layami est-ce que dina jàll est-ce du jàll obligation la force la pour mu jàll. man mi di wax ak yow mën naa wax a yow fii billaahi wallaahi tallaahi man ci ñii laay gis ñoo xam ne dañu nekk seeni bureau bi une heure et demie deux heures du matin barke alxuraanu karim hmm. une heure du matin deux heures du matin di liggéey ci ñii laa ko gis man ñii c'est la coalition des hommes prêts. ñii xale yi dañ leen a yónni yàkkamti leen ñoo xam fan la ñu war a yóbbu Sénégal fan la leen nit ñi di xaar. léegi Samba lu jaaxal nit ñi mooy Macky Sall bu mu fi nee ci réew mi réew mi métti toon waaw réew mi dafa neexoon. Mhm. ñaa ngi koy sentir. Mhm. yéen da ngeen ñëw réew mi loolu loo ci wax. lan moo tax xam nga tey jii man ñaanu ma ko yàlla. waaw mayor de l'argent sale mu yomb ma trop dama koo sàcc dama koo wuruj dama ko def nii dama ko triandé dama ko def nangam ak nangam. Mhm. ma génn di ko baatare du dara ci man. parce xaw ma lan mooy ñàkku dërëm. vous êtes d' accord. d' accord naa foofu mais tey am na loo xam ne yow boo ko ñàqee muy la sueur de ton front. Mhm. boo koy génne di nga xam fi nga koy teg fan la. réew mi dañoo dem ba nga xam ne dañuy foyee ay milliards xam nga dañuy foyee ay milliards. milliards doon ci parce que détournement yi ñoo bari. jarul kenn di daw. ndax lu fi waaye jëloon di nga ko tegaat. Hmm? lu fi waaye tabax. est-ce que da ngeen ko da ngeen dem ba jusqu'au bout ndax te soon na Ablaye Wade teg na ko ci suuf Macky Sall euh, fa mu jég waa CREI yi yéen est-ce que da ngeen dem jusqu'au bout. réduction des président de la république c'est pas Diomaye Diakhar Faye. mooy président Bassirou Diomaye Diakhar Faye lu mu wax fii ministre yi. waaw wax na ko Macky Sall wax na lu mel. non non non bi ay ay am tàkku seen nga seen kaw xam nga dafa baat bu am caq ak baat bu amul caq. baat bu amul caq. waaw ak baat amul caq lii Jomaay def Macky Sall mos na ko fi def. defati ko fi def waaw foofu laay wax nit ñi duñu benn sa baaraam yi bari nañu. waaw mais tolloowuñu. waaw juróom lañ. mais tolloowuñu laa wax. dëgg la nangu loolu. nangu naa la loolu. est-ce que yow sa jikko ak sama jikko abadan daay man benn la ku nekk am nga foo juddoo ku ne am nga foo yaroo am nga looy jomb am nga looy rus am nga looy ragal ñun nag dafa am ci ñoo xamante ni ci ñooñu la ñu teg suñu bët njàpp ni ñi ñoo yóbbu si l'orbite du développement ce pays hmm. mooy cette génération d'idées qui sera face à ce consortium d' intérêt. ok voilà te nag euh, Samba Tall fi may daanelee mooy malgré les accusations wala malgré li ñuy wax Macky Sall ak régime am yëpp Macky am na yaakaar euh, na day baat campagne fii yéen a ngi xaar ñëwam gis nañ polémique bi dana ñëw wala du ñëw ba mu ñëw fii ay menaces mais fi mel ni moom affaire yi yëngalu ko daal. xam nga man lan laay wax sénégalais yi nga xam dañoo bëgg Sénégal. waaw ah. nga xam ne bëgguñu ay détails parce que ñi ñu yor duñu ay homme de détail c'est des hommes d'État dañ leen dénk réew ni leen dafa tëdd yëkkati leen ko mu toog yëkkati leen ko mu sukk yëkkati leen ko mu taxaw yëkkati leen ko mu daw yëkkati leen ko mu mu dox yëkkati leen ko mu waaxu yëkkati leen ko mu daw ñooñu taluñu ay détails taluñu ay détails de Macky la dina ñëw ak du ñëw loolu ñun focus suñ ci xam nga suñu focus lan la d'abord. Mm-hmm. muy samedi fundraising bi nga xamante ni Ousmane Sonko chef du gouvernement moom moo ni bëgguma jël benn dërëm ci état central di ko def ci sama campagne. kooku moo ñu permettre transition. bi ñu dugg ci déclaration bu Ousmane Sonko bi. dee merci beaucoup. président parti Pastef moo wax. waaw nee na moom mooy président parti Pastef mooy wax ak mhm. mbokki Sénégal yi. Uh-huh. Euh, waxul tontu dara Macky Sall dafa amaat lu mu annoncé waat la dana ko wane waat mhm. la ñuy doyal si Ousmane Sonko révélation yi mu joxe. du ay dafa am fu mu bëgg a yóbbu réew mi. nee naa la xale yi dañoo yónni yàkkamti ñu am yaakaar ci ñoom jox leen réew mi grand ci ministre yi nga xam dañ leen fal yépp ministre bu ñuy tudd nga ni kii mooy liggéey kii liggéeyul. Hmm. ànd ak ñoom bañ ànd ak ñoom est-ce que opposition bi gis nga ñuy déngat ci ministre yi. Sonko la ñuy déngat man. merci beaucoup Ousmane Sonko la ñuy déngat moom mooy Paarbal. moom mooy Paarbal. Diomaye neex la na moom kenn ko daaw. waaw waaw moom mooy Paarbal moo tax réew mi di dem xamul tax muy dem. Hmm. parce que lu ñëw moom mu encaissé ko mën na ko.